وقلبك على سادات الأموات أبي الأراضي عليه rahmatullahi taala wa barakaatuhu seen groupe istikhama point com moo dil tey di leen indil màggalu poroxaan atum 2010 màggalu poroxaan ren mi ngi amoon ci juróom-ñaari fan ci jumaadal ula atum junni ak ñeenti ak fanweer benn ci gàddaay gi di dëppook alxames ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru avril atum kon groupe istikhama point com ni mu ko baaxoo rek ci mbooleem këri sëñ Tuubaa yi fu fi màggal am ñu dem fa indil leen ko ngir mën koo wan yoon wi kenn ku ci nekk xam na mu demee woon ak liggéey ba na mu tëdd kon màggalu Poroxaan nag li ci jiitu bi nga xamante ne rek ah, dem nañu ba ci talaata ji ni ko xalif général des mourides Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké taamoo defee at mu jot mu daa dikk di màggal si te ba mu ko tàmbalee def ak léegi mu ëpp juróom fukki at waaye fii nga xamante ne nii nag fi la taxaw taxaw ci buntu kër Serigne Touba doon xalifaam tax na léegi da koy jiital ci talaate ji ci la ñëw kon fii ci Poroxaan ànd ak mboolem waa kër sëñ falu yi kon sëriñ bi ba mu xëyee rek Touba ak délégation bi mu àndal yépp ba mu ñëwee ba Kaolack moom dafa daal di jaari naawel ni mu ko baaxoo defee siyaare soxna astuwalo mi nga xamante ni mooy wayjuru jaar jaara Bousso mii nga xamante ni moom la ñuy màggal ziar ko ba mu fa bàyyeekoo dellusiwaat ànd ak délégation bi ñëw ba Pawaskoto bi mu agsee Pawaskoto nag euh, xam ngeen ni gan euh, koo fonk da koy teew looloo tax Serigne Bassirou Mbacké mi nga xamante ne nii mooy wàllu organisation bi ànd ak mbooleem ay rakkam ñëw ba Pawaskoto di fa xaar Serigne bi kon Serigne Bassirou Mbacké ànd ak mboolem ay rakkam ñu gën cee reññee Serigne Mame Thierno. Ah, sëriñ Abdourahmane ah, sëriñ Basirou ñoom ñëpp ñëw nañ fii ci coto di fi xaar sëriñ bi bi ñu toogee di xaar nag mbooloo mu nga xamante ne nii ñoo nekk Paoskoto ñoom ñëpp itam génn nañ ngir tertu ki nga xamante ne nii mooy xalif général des Mourides sëriñ Mouhamadou Lamine Bara Mbacké kon gis ngeen ko noonu mu agsi ànd ak délégation am sëñ bi bi mu taxawee rek sous préfet Paoskoto ànd ak euh, préfet bi ñoom ñëpp ñu ànd ñëw nuyu ko sargal ko ànd ak moom délégation bi nag jub wuti Nioro bi ñu agsee ba Nioro nag am na fa station bu bees boo xamante ne nii Serigne fàllu lañ ko duppe rek Serigne Cheikh Ibra moom Serigne fàllu ak Serigne Mamor euh, ñu ràññee ci itam euh, waa kër gi ñoom ñëpp ñu taxaw fa xaar fa Serigne bi ngir station boobu yi nga xamante ne nii kenn ci waa kër gi moo ko fa sam ngir baaxe ko taalibe yi ci màggal gi Serigne bi moo fa njëkk sol carburant ak mboolem délégation ngir ci moom ngir euh, léemu barab bi euh, liggéey boobu itam ba mu sottee rek ci la délégation bi daal di wéy nag ànd dugg biir ñooro mbooloo mépp yéen di ko koy gis ñu génn ku ne taxaw fenn di ko ñaanal ngir muy gën fee yàgg ngir liggéeyub Serigne Touba bi nga xamante ni sumb ko mu mën ko àggalee ni mu ko bëggee. bi ñu agsee ba Nioro nag xam ngeen ne diggante Nioro ak Porokhane mi ngi war a toll ci juróom-ñetti kilomètres ci la ñu nag ànd nag ak délégation bi nag wutali barab bu sell ba di Porokhane. ba ñu jógee poroxaan xam ngeen ne poroxaan tali bi yi nga xamante ne nii mooy tali bu bees bi ñu fa def muy déviation bi ku ne xam ne rang-rang la woon rek poussière bi daana bari lool waaye ren gouvernement bi defar na ko muy tali boo xamante ne nii dafa wër dëkk bi ñuy dugg si ci màggal gi ren danañ teel a jël déviation bi ngir circulation bi bañ a xat ndax mbooloo mépp fay daje réew mépp bi mu agsee nag ci école bi nga xamante ne nii moom lañ duppee Maam jaar Jaara Bousso te ay turandoom rek nekk fi ñoom ñëpp génn nañ ànd ak directeur école bi sëriñ Moustapha Diop ak soxna Ami Dem sëñ bi taxaw foofa gone yi génn di ko siyaare ku ne di ko ñaanal ngir mu gën fa yàlla mbooloo yëpp itam génn taxaw gis ngeen Hizbut Tarqiyyah Daaru Xudoos noonu ñoom itam ñu taxaw di teeru sëriñ bi ña fa jiitu woon ngir préparer seen wàllu màggal ndax sëriñ bi foofu la leen jox ngir woon faa màggale muy këram gi ci nekk ci buntu dëkk bi kon mbooloo yëpp ànd ñu continuer dugg ci biir dëkk bi romb marché bi ñëpp génn di ko sargal ba mu agsi nag ba ci barab bi nga xamante ne nii mooy pénc mi foofu itam mbooloo yëpp génn nañ ñu taxaw ci pénc mi di ko sargal di ko ñaanal ngir mu gën fee yàgg lool ngir li mu naal ah, liggéey sëriñ Touba mu mën koo matale ni mu ko bëggee bi mu agsee nag ak sëriñ Muntaqa ànd ak mboolem ay rakam ak mbooleem njaboot gi ñu ràññee ci sëriñ Abdou Akim Mbakke mi nga xamante ne nii rakkam la sës rëkk ci moom déggal ko lool di ab taalibe ànd ak sëriñ Fallou euh, moom itam di doom si sëñ Basiiru ànd ak sëriñ Isaaxa ak ki nga xamante ne nag mooy jëruñu kër gi nga xamante ne nii moo yore wàllu accueil bi muy sëriñ Moussa moom sëriñ Moustapha Basiiru ñu koy wax sëriñ Moussa Nawel moom itam moo yare wàllu organisation bi tartu bépp ci loxoom la ko sëriñ bi teg mu ànd ak mbooleem taalibe yi ànd ak mbooleem kilifa yi ñoom ñëpp ñu tertu sëriñ bi sëriñ bi euh, fekk sëriñ Muntaxa ci saal bu mag bi mbooleem kilifa yi ñëpp nuyoo mu wéet moom ñu waxtaan ci li nga xamante ne nii moom la ñu war a waxtaan lépp di liggéey sëriñ Touba ci biir waxtaan ya nag sëriñ bi nga xamante ne nii mooy sëriñ Muntaxa mi ngi koy rendre compte ci liggéey yi nga xamante ne nii sumboon na ko ko te lépp di liggéey sëriñ Touba te mu koy def ci turam muy liggéeyu jumaa ji nga xamante ni moom la ñu war a yeesalaat fii ci Poroxaan wala muy liggéey bi nga xamante ne ni sumb na ko ca Kaolack muy soroot bu ñu fi war a defaat yeesalaat barab ba ak liggéey bi nga xamante ne nii yëpp rek sëriñ bi def na ko rendre na ko ci kont mu ñaanal ko ci xam ne liggéey boobu yëpp liggéeyub sëriñ Touba la euh, liggéeyub maamam la te moom moo fi dekk ci buntu këram doon xalifaam doon ki nga xamante ne moo yor baat bi kon lépp rek waras na ko ko leeral ba mu xam fu liggéey bi toll jërëjëf moom mu liggéeyam soxla mu doon gàddu soxla mu war na ko ñaar ban léegi bi mu noppee ci loolu boo ma amee fi mu moom bi ko jiital soxla. waaw waaw loolu lépp nag sa liggéey. waaw xam nga waaw ñaar <laughs> ko taal bi soxla waaw. ginnaaw bi siyaar yooyu weesoo nag sëriñ Mouhamadou Lamine Bara Mbacké xalif général des Mourides yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér mboolem média bi ñëw nañu muy RTS muy Touba TV muy Istikhama muy groupe yi nga xamante ne yëpp nekkoon nañ fa ñoom ñëpp tàllal nañ seen micro sëriñ bi nga xamante ne nii mooy xalif général de Mourides di sëriñ Mouhamadou Lamine Bara Mbacké mu jottali ay kàddu ci soxna si ci li nga xamante ne nii mooy barab bu sell bii li nga xamante ni moom lañ fiy sàkku si kon ñu teewlu Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké xalif général de Mourides ginnaaw bi nga xamante ne nii euh, Serigne Ablaye mbay moom tubaab Peex def na introduction bi wax lan mooy yillay bés bi ak laaj yi kon ñu déglu kàddu yooyu nga xamante ne nii Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké jottali na ko mboolem taalibe yi. Sidi soxna Jaaratulaahi noo ngeeg satam bii nga xam ne tey mooy xalif général kullu murit Cheikh Mamadou Lamine Bara yàlla na fi yàgg te mu ñëw fekk si Serigne Mountakha moom Cheikh Mamadou Bachir ak njabootu sëñ Bachirou gi yëpp nu doon ñaan nag yëkkati sunu kàddu sunu micro dékk ko sëriñ bi ñaan ko ñaari baat rek soxna su tedd si tax tey ñépp jóg. soxna sii mu ni mu ni soxna sii day. ci moom la sëñ Touba wax. ne ci lii sëñ Touba wax. nee na sëriñ Touba moo wax ni fii ci Porokhane ku ni jàng ci soxna si ma fekk la fi. ne boo demee ma wuutu la fi. fu nekk mu ni fu nekk lañ may wuutu. waaye ku ne jàng poroxaan moom ma fekk la fi fu nekk lañ may wuutu waaye ku ne jàng poroxaan moom ma fekk la fi. sëriñ bi ne te amuñu lenn lu muy sëriñ Tuubaa rek la am. kon ku ko yaakaar. bëgg sa njariñ ne da ngaa war a waaxu nag dikk fii ci poroxaan. ndax dikk gi lu baax la. kii nga xam ne moo fi nekk. ne kii nga xam ne moo fi nekk. liggéey liggéey boo xam ne bii. liggéey benn liggéey. benn liggéey ca. waajuru sëñ gaawaan. ne waajuru sëñ gaawaan. ne dafa am benn bis. maam Anta Ndiaye. ñu newoon ci kër gi. mu ne ñu newoon ci kër gi. waxtaan ak ñoom dajale leen. nee mu waxtaan ak ñoom dajale leen. berndeel leen. berndeel leen. wax ak ñoom bu baax. ni leen man day ñëpp dama leen yéene lu baax. ñeen ñëpp dama leen yéene lu baax. bëgg ngeen am ko. bëgg loo xam ne lii. nee gis naa nag loo xam ne lii. manees na cee jëriñu. loolu mooy lan. nee loola mooy lan. ñun eh, ñii fi sama borom bàyyi. nee ñun ñii fi sama borom bàyyi. damaa bëgg kenn ku ne. damaa bëgg kenn ku ne. takku takku. laxasaayu. laxasaayu. te la la fa yàlla may. te la la fa yàlla may. ñu xiir ko ci doomi soxna jaare ji. ñu xiir ko nag ci ñun ñii fi lu ku nekk la la yàlla may ñu xiir ko ci doomi soxna jaare ji. ndax dem na ndax dem na kat. te ku yéex. te ku yéex. mu dem wàcc la fi. kon nag ne kon nag sëriñ bi ne loolu. ñoo seetlu woon ñoo seetlu woon loolu. ba wax loolu. lu baax la. ne la. lépp mat li mën a wax ci moom bari na. ne li ñu mën a wax ci moom noo ngi ñaan nga yàgg te lool ndax bi nga jógee ci suba jaari ci soxna astuwaalo mu tedd ma nga xam ne nag lu jiin njaagate mooy njaag siyaar ne ko Cheikh Abdou Khadir sa waajur wa sa xarit ba daa defee daal di jàll si fii ci Porokhane Serigne Mountakha ànd ak njabootu Cheikh Mamadou Bachir gii fekk la fi ngoon na la ko tool yi mujj Mbàkke noo ngi ñaan nga yàgg te wér ku des dese noo ngi ñaan nga yàgg loolu te wér jërëjëf waaw ñu ñaan mu ñaan. talal Ablaye nee sëñ bi mu ne ñu ñu ñu sàkku njëriñ rek ne lu fi waay sàkku daal ne leer na ni moom dana am nee kon nag loolu. boo jógee fa nga dëkk di lenn la la tax a jóg da ngay fexe ba am ko ne kon mi ngi nii rek bisimilah bisimilah ne càkkutéef yi li ciy njëkk nag Mourtiane nee na nga yàgg fi te wér bisimilah ci barkeb sëñ Fallou barkeb sëñ Fallou barke sëñ Fall ah, barke sëñ bi yëpp ñoo la ko yéene dëgg yaatal nga hmm. rafetal nga sellal nga sëñ Maodo Cissé yàlla may na la yàlla may walaay walaay sagal nga lislam bi yëpp amiin amiin sagal nga bokk gépp amiin tabaarakallah Mbacke jërëjëf ñu tàllal nee sëñ bi nee mi ngi lay seereel ni dara du xew Touba te dikkoo ca loolu nag doy na péete ragal péete nag day xañ a wërsëg waaw bisimilah bisimilah bisimilah bisimilah lakkal fadlu ya muxtaar ya sayyid al wara alayka salaamu laahi ya man maa sulaa ginnaaw bi ñu jógee ci kàddu yu tedd yooyu nag sëriñ bi nga xamante ne nii moom la fekk si woon muy sëriñ Mouhamadul Mountakha Mbacké moom sëriñ Bassirou doon xalifa ak sëriñ Bassirou ak mboolem ay rakkam euh, teraanga yi yëpp mat na kilifa yi yëpp ñu ngi noonu gis ngeen Cheikh Mouhamadul Bachir moom sëriñ Abdou Khadre mi nga xamante ni mooy porte parole sëriñ bi ànd ak moom di def ay nemmiku euh, ku ne xam ne ne sëñ Mountakha ak taalibe lay jàngale ak taalibe lay wane ci mbooleem ñi nga xamante ni ñooy waa kër sëñ ba ñu demee nag ba ci guddi gi sëriñ Mouhamadou Lamine Bara Mbacké génn na ànd ak délégation ngir siyaare barab bi ndax wax na ni moom lu ëpp juróom fukki at mi ngi ñëw ci barab bii di ko siyaare kon xam na lan mooy yilla yi. kon sëriñ baa ngi noonu génn ànd ak mbooloo mi ñëw ci barab bi ngir def ay ziaram kon ñu teewlu ziar yooyu nga xamante ne nii sëñ bi def na ko ndax barabu teewlu la barabu ñaan la ndax lépp loo xamante ne nii waaye fas na ko fi dana ko fi fekk ni ko sëriñ bi waxee barab bii de koo xamante ne nii ñëw nga fi teewlu fi boo fi ne jàng sëriñ bi dana la fi fekk loo fi ñaan dana la ko defal ndax soxna jaara ku ne xam na taxawaayam ci biir diine lislaam ñu ànd teewlu nag te ne nii sëriñ baa ngi def jaaram taxaw ak mbooleem kilifa yi di def ay ñaanam mbàkke ñuy ñaan lépp loo xamante ne nii fas nga ko fi rek sëriñ tubaa defal la ko ni nga ko bëggee mu yàggal la fi lool nga ànd ak wér ak mbooleem njabootu sëriñ tubaa yi ba lépp loo xamante ne naan nga ko mën ko matal liman kaana li bil joodi wa wa wa taayidi ويزيل الرداء من الواسع الوهاب فهو النسير أميري لدى سيري kon sëriñ baa ngi noonu dellu ci biir kër gi fi ñu ko dalal ci kër sëriñ Touba gi ci biir kër Soxna Jaara gi ndax foofu la dal ànd ak mboolem ginnaaw bi ñu jógee ci loolu nag Serigne Bassirou Mbacke Porokhane mi nga xamante ne nii moo doon organisateur principalu màggal bi ànd ak mboolem ay rakkam te def ko nag ci turu Serigne Moussa Nawel mi nga xamante ne nii mooy xalifa Serigne Moustapha Bassirou moom itam jël na fa kàddu leeral ngan gi leeral liggéeyu màggal bi fi mu toll gouvernement beeg service si nga xamante ne nii engagé woon nañu ci ay liggéey yoo xamante ne nii war nañ ko fee def loolu lépp mu wax ko kon ñu tàllal ko suñ micro kon ñu déglu Serigne Bassirou Mbacke Porokhane mu indi ay leeral ci wàccaayu màggal bi ak liggéey bi fi mu toll kon léegi kàddu yi ñu ci waxee ci suñ xol rek lañ ko tibbe loolu moo waral mbégte mi bis bi nag bisu mbégte rek la ñu santati ci yàlla ndax njëkkeewut tey sëñ Mouhamad Lamine mi nga xam ne tey moom la yàlla teg ci kanam yoonu murit e, ku ko xam-xam ni ku bëgg dëkk bi la mos naa dégg mu ne takk na ni ñëw na fi juróom fukki màggal ak ñaar defe naa ba fi Cheikh Amadou Bachir njëkkee ñëw at yu néew la ca teg di ñëw mu mosu koo wute bu dul boo xam ne xaw ma dafa aji woon màkk xaw dafa dafa dafa wéradi woon waaye na benn yoon la ko mos a wute ba ko sëñ Bachir tàmbalee ak léegi kon kooku xam ngeen ni miin na dëkk bi bëgg na dëkk bi lu dul loolu it man mii nga xam ne rek yàgguma fi ñeen fukki at rek laa fi amagum ci dëkk bi eh, seere naa yoon yu bari yoo xam ne ñëw na ko fi lu dul màggal dafa fekk sëriñ bi noonu rek la fi fekk bu ñëwee siyaare soxna si kon nag bu yàlla defee li muy def dogal ko tey jii mu nekk ci bopp yoon wi eh, ñëw ñëw na mu daan ñëwee loolu sant yàlla rek ci war waaye nag du lu yéeme ndax moom eh, li nga xam ni sama borom def na ko fi ñëpp xam nañ ko waaye kenn gënu ko koo xam ndax li kenn ëpp ko lu mu fi ñëw ah nun ñi nga xam ne noonu la fekk si sant nañ yàlla bu baax ndax nun li nu fi bàyyi du dara lu li nga xam ne yàlla def na ko fi defal ko fi murit yëpp defal ko fi jullit yëpp nu du leen ko sàmmal loolu rek loolu rek nu fi bàyyi ndax ba suñu Tuubaa di wax ne bu sañoon fii dund bu sañoon fii wettaliku loolu ba mu doonee bëgg-bëggam rek la war taalibe yëpp taalibe yëpp nag mënuñu fee daje nag bu ñu fi daje woon am réew lay doon waaye ñu leen fi daje rek daj ñu leen fi nekkee rek mu doon fardu kifaaya ci ñoom euh, moo tax nun ni ni ko sëñ Jili waxee léegi euh, ba sëñ Touba nekkee njaaram Touba bi téye ko fi mu bëgg fi wétli yebal fi Cheikh Amadou Bachir mu jaar ci magi Saalum yëpp Euh, daje ba dajal leen door a ñëw fii euh, fekk barab bi booba raafoon na mu defaraat ko def dafa ràññ euh, bañ di ko xam bañ bañ di ko ràññee mu digal mag ñoo ñu ne dañ koy toppatoo waxtu ne ba ba mu fi mën a ñëw sañ si ni ko sëñ Tuubaa bëgge woon ak ni mu ko ko digale woon booba ci loolu la nekk bu ñu fi jógee sëñ Moustapha Bachir yi nekk ci loola ba li fi am lépp si ngeen ko kon nag buñ toogee tey ba Cheikh Amadou Lamine ne fi yàlla dajeeg yàlla def mu dajeeg Cheikh mun Mountakha na àdduna moom noonu rek la ku ñëw da nga dellu ko mën di doon boo ñëwee da nga dellu noonu la ko yàlla binde noonu la ko yàlla chartale mu tax si Moustapha ñëw euh, li fi Cheikh Mamadou Bachir naaloon bëgg ko fi nisar ko fi yaakaar naa def na ci dara ba yàlla jële ko fi mu fi jógee sëñ toog fi moom i tànk yooyu rek la jaar dëgëral la sëñ Moustapha defoon sax ci liggéey bi ndax liggéey la boo xam ne Euh, du jeex bu mukk dundal fii ak wettali ko du jeex bu mukk ndax bëggu sëñ Tuubaa la ak ni sëram kon nag bis bi mbég mbégte rek lañ ci am euh, ku seetlu sëñ baar ren defe naa at mi rek léegi ñetteelu yoonam loolu nag wax dëgg yàlla euh, ku yor lim yor yenu lim yenu ku ne xam na ne amul jot waaye foo xam ne at mi dem na fa demati fa demati fa xam ngeen ne foofu lu rëy ko fa nekkal kon nag nun ñi nga xam ne wattu rek nu war ak ak fas yéene góor teg suñu bakkan ci ci fi tëdd lim bëgg mu di fi am lim bañ du fi am nun bëgg rek lan def lii ab soññee rek lan ko def euh, la ca des itam mooy màggal gi niñ ko xamee euh, moom euh, ñett ñaari fan ci des xaw ma ñett bi ko sëñ bi jàppeek léegi noonu ci waajtaay bi mu ñëwagut daje yi nga xam yi nga xam ne war nañ koo daje ak administration bi nga xam ne ñoom li nu mënalul suñu bopp ñoo nu ko mënal ñoo nu koy defal ndax àdduna loolu rek fi ne da ngay mën li tële lii sa morom mën li tële lii yàlla def nag noonu lin ci mënal suñ bopp sëñ bi mënal ko boppam loolu noo ngi ci booba tey liñ mënalul suñ bopp nag te nga xam ne nguur gi noonu ko gàddu ñoo ko war a mënal loolay noo ngi ci liggéey bi daje nañu daje yi ñu war a daje yëpp liñ soxla lépp sëñ bindoon na ko wax ko euh, service yëpp jël nañ engagement def ko ba fi may wax ak yéen ñi nga xam ne seen liggéey tàmbali nañ ko muy yoon wi mboolem lu fi AT ATR def war a def def na ko ba mat sëkk defar na yoon wi gis ngeen ko mm, euh, yi nga xam ne dafa yàqu defar na ko déviation bi goudron nañ ko li ci biir dëkk bii defar nañ ko muy sën yi ak taq-taq yi euh, Senelec ñi ngi fi extension bi ñu war a def def nañ ko ñu ngi ci tàmbali nañ ko matériel bi ñëw na Sonatel ñoom it ñu ngi seen liggéey euh, ndox mi hydraulique ñoom it tàmbali na ñoo ñëw santé ministre bi ñëw na fi bërki dem wax na lam daan joxe ci garab lépp joxe na ko war nañ ma kayit bi euh, ministre bi dimbalee itam démb la fi yendu moom itam li mu mën lépp def na ko ci ndimbal ñuy nekk service yi nga xam ne nag ñoo ci des te yaakaar nañ ni ñooñu ñëw itam biñ ñëwee li seen i morom def rek la ñuy def kon nga xam ne daal waajtaay moom am nañ ci yaakaar li ci des rek mooy bokki taalibe yi ñu xam ne mag moom lu ko tax a jóg du jarul nga di ko ci soññ jarul nga di ko wax itam yoon moom muy jaar bu xasee jóg ba tegu ci yoon rek fa mu bëgg fa la jëm waaye nag ñu dolli leen rek xam ne fii barab la boo xam ne àdduna sépp fii daje nit mën na fee ñëw euh, di fi sàkku njariñ loroo fi lore fi kon nag noo ngi ñaan ñëpp rek kenn ku fii ñëw ku nekk nga ànd ak teelu ak dal ak dal te xam ne li ngi fi wut la fi sa morom di wut li sëñ Mouhamad Lamine Baara waxoon keroog sëñ Muntaxa ba ñuy teg xeeru jumaa ji mhm. ba ñuy teg xeeru yokkuteel jumaay Poroxaan ji mhm. xamal ko ne ko waxoon nga ne naa toog yónnee mhm. waaye li nga fi wut rek laa fi wut waaye nit ñu xam ne kenn ku nekk ci noonu li fi wut rek la fi moromam di wut te yaata la yaatala yaatalate yaatalante gi ci la yërmande di amee kenn ku nekk bu yaatalee moromam bañ koo lor la nga bëgg da ko am kooku it la nga bëgg waaye nag Euh, lor sa morom la nga am ci lu baax ñu fayee ko dara jëru kon nag war na ko kon nañ tey ñi nga xam ne dañoo yore oto ñu def ndànk bu buñ topp neexeetu yoon wi te te àdduna ni mu demee na nga ni daaw yoon wi kenn mënu cee jaar ku nekk ngi jàmbat na nga ni ren dafa neex bañ naan def leen ndànk daaw dañ doon wax def leen ndànk neexut dañ ñu naan def leen ndànk neex na kon nag nañ ginnaaw neex na nañ def ndànk te te muñalante ba agsi si jàmm gis ngeen barab bii ab chantier la neexute siyaara bis bi daa ñëw rek ñu jéem a fexe nuñ ci siyaare kon nag na ñëpp teelu te te te te te muñalante koo ci xam ne agsi nga fi nga xam ni foofu ngay foofu ngay njëkk a jot muy li ñu warale foofu la ñuy siyaare bu kenn jéem a dugg ci biir bu kenn jéemu a xëccoo taalibe yi mel ne man nag ca ginnaaw la ñuy taxaw ku fa dugg rek yàlla gis na la <laughs> yàlla yàlla moom boo tëddee boo taxawee loo mën def mu ngi lay gis te te te yàllaa nga fa ginnaaw yàllaa nga fa nag la fa nekk yàllaa ko fa def fenn fu waaye agsi rek ñaan doy na sëkk ñu bañ xëccoo kenn ku ne xam fa nga war a yem kilifa yi dugg ci biir fiñ leen wan euh, te ku ku ko mën nga bañ faa yàgg ndax ña fa bëgg ña soxla day bari taalibe yi itam def noonu lépp benn bunt la yeneen yi ci des itam yëpp teen baak jumaa jaag lépp rek kenn ku ci nekk teey te kenn ku nekk xam ne bu teeyee rek na mu ko bëggee dana ko ne defe te na mu ko bëggee dana ko ne amee incha allah يا أهتم عمانا وزور قصوري خلت والأهل عني تفرقا لمدح الذي عنه المدين خسير خلاص mbokki jullit yi mbokki taalibe yi loolu mooy li nga xamante ni indi nañ leen ko ci xaaj bu njëkk bi mu jëm ci ngan gi nga xamante ne nii sëñ la Lamine Bara Mbacké def na ko ci Poroxaan di siyaar si soxna si tedd si nga xamante ne moom la ñuy màggal ci njiitalu sëriñ ba Bassirou ak mboolem ay ay rakkam ak mboolem waa kër sëñ Bassirou képp ak mboolem mbokki taalibe yi ndax Poroxaan day barab boo xamante ni ñëpp ko bokk képp koo xamante ne nii rek yaa ngi wuyu ci turu Seexul Xadim am nga fi barab am fi place ndax ñëpp bokk soxna si soxna si dafa doon koo xamante ne nii ku ñëpp di siyaar si la ndax mooy maamu ñëpp moom moo tax lépp am ndax moo njëkk a liggéeyal Serigne Touba koo xamante ne nii Serigne Abdou Lahad nettali na bi nga xamante ne nii mi ngi ci diggu natt yi dañ ko tàbbaloon nañ ko ci ak bënn goo xamante ne nii malaaka yëpp fekk nañ ko fa ngir bëgg koo dimbali mu laaj leen ndax ndigal sama borom ngeen indi ñu ne ko déedéet mu ne soxlawuma te kon amul dara rek lu may nit na sëq ci ay waggam ne ko cëpp fële ko doxal si sa liggéey ba mu ko geesoo nee na muy soxna bu sa ndeyam kooku kon ku amoon place la ci liggéey bi nga xamante ni moom la sëriñ bi doon liggéey kon nag taxawaayu soxna si ak li nga xamante ni mooy sañcu poroxaan ak fi nga xamante ni fa la jaar ba agsi fii loolu lépp bëgg nañ leen koo indil ci li nga xamante ni moom moo ci topp euh, ki ko war a def nag di sëriñ Cheikh Bousso di imam jumaay poroxaan doon itam kenn ci waa kër gi moom mooy indi waxtaan woowu nga xamante ni mooy cosaanu poroxaan fi mu dalee ba agsi fii ñu agsi kon ñu déglu Serigne Cheikh Bousso Porokhane mu indil ñu cosaanu dëkk bi ak màggal gi nga xamante ni moom la ñuy def fii ci Porokhane nadal naxdaay wa huwa basiru sëriñ bi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziare di leen sant di leen gërëm di leen ndokkeel itam ci bis bu tedd bi nga xam ne ci lañu nekk muy màggalug soxna maam jaaratullahi Mariam ñu di ko defee fii ci dëkk bu sell bi di Poroxaan di dëkk boo xam ne ni nga ko waxe mi ngi nekk ci région wu Kaolack ci département bu Nioro du Rip ci arrondissement Paoskoto digganteem ak Nioro nekk ci soriwaayu juróom wala juróom doon dëkk boo xam ne bii itam communauté rurale la muy dëkk boo xam ne bii moom la sëriñ Mbàkke Mor Anta Sali dëkke woon jamono yi nga xam ne wuy si nañ wooteeb jàmbaari lislaam ja muy al imaam Maba radiyallaahu anhu ci jihaad ji nga xam ne moom la doon taxawal ngir yëkkati lislaam xam nga ne boo deltoo gannaaw tuuti ci taarix da nga dégg jihaati imaam imaam Maba Jure jooju nga xam ne moom la doon taxawal njëlbeen nga fii ci Saalum rek la jihaat ji yemam boori 1861 1862 fii ci Saalum rawat na ci gox bi ñuy wax Badibu bi nga xamee na dem na ba not ñi fi nekk ñëpp wax nañ ne ragaloon na ne bu dajalewut ñëpp ragal na ceddo yu wëlbatikuwaat fayuwaat ci nit ñu baax ñi fu ñu mën a ne tax na mu demoon ci kilifa yëpp dajale leen dem Bawal ak Kajoor ak Jolof ak fépp dajale kilifa yëpp a nekk ngir ñu ànd dikk fii dajaloo mën a doon doole lislaam joo xam ne dinañ mën a jàkkaarloog noonu lislaam yi doon doole joo xam ne itam duñu duñu neex a damm loolu kon ni ma la ko waxee jihaad ji 1861 1862 booba fii rek la yemoon waaye bi nga xamee ne dem na ba war a gën a yaatu ngir yooyuñ ci xalaat yëpp ci la dajale woon ñooñu xam ngeen ne mam Balla Aysa waajuru Maam Mor Anta Sali ba mu demee ci moom daf ko fekk mu doon mag am juróom-ñeent fukki at wala lu ko jege mu boole leen ak doomam sëñ Mbàkke Mor Anta mu ñëw ànd ak bokkam yi nga xam ne ñoom la fi àndaloon ñu mel ni sëriñ Bousso radiyallahu anhu Cheikh Samba Tukulóor Ka Cheikh Ahmadul Muxtaar ñoom ak ñu demee na ñooñu ñoom ñoo àndoon ñu wuy si woote bi lislaam bi nga xam ne moom la leen imaam Maba radiyallahu anhu woowoon bi ñu ñëwee itam comme kilifa yi niñ ko ni ko ñëpp xamee dañuy soxla barab boo xam ne bii danañ fa mën a def def seeni tool mën fa seeni daara du ñu mën a dëkk ca teeru ba di jaxasoo yenn xeeti nit ñi moo tax kenn ku ne ci ñoom danga génnoon dem ci beneen dëkk boo xam ne bii xaw naa daan du ñooro aslëf nga nekk fa di fa taxawal sa daara di fa taxawal say tool bis yi nga xam ne moom nga war a teew si ci dëkk bi lu mel ne altine wala alxamis ngir lu ñu fi war a daje te koo daje ngir lislaam ñoom ñëpp bu bis boobaa buñ dikkee ñu daje ko bu jeexee kenn ku ne delluwaat ci barab ba nga nekkoon kilifa yëpp kenn ku ne nekkoon nga ci barab barab yu wuute yu bare bare bare xam nga ni si Bousso bi nekkoon na fii sax wax nañ ko nekk na Paoskoto nekk na Nawel nekk na ci barab yu bare bare yeneen kilifa yooyu ñu àndoon itam ñoom it nekk nañ fi ci ay barab yu bare bari ci Saalum waaye suñ mbàkki Mor Anta Sali moom fii la fii la saxoon nekkoon fii it ak maam Jaara muy dëkk boo xam ne bi fi lañ ko fekk niñ ko waxee dëkk la bu yàgg yàgg boo bi am na ay téeméeri téeméeri at waaye ñoom sañcuñu ko woon euh, xaj lu demee ne ay séréer wala yooyu daal lañ gën a lañ gën a jàpp ne ñooy ñi sañc dëkk bi ndax teen yi fi nekkoon ak ak yooyu yëpp ak jeexit yi nga xam ne ñoom lañu fekkoon ay séeréer a ko fi defoon booba ci jamono yooyu teen bi ñuy tuddee teen maam jaara ku ñuy wax jëleen lañu wax ne moo ko fi gasoon ci séeréer yooyu nga xam ne ñoo fi dëkkoon ci jamono yooyu bi ñu dikkee ci dëkk bi nag xam nga ne nitug lislaam moom fu mu dem rek soppi ko fu mu dem soppi ko nekk gi ñu fi nekkoon ak barkeel gi leen yàlla barkeel li diir bi gàtt gàtt nga xam ne am na ñuy wax ne ëpput ñetti at teewut bi ñu fi jógee itam seenu tura fi des seen barke moo fi des seen njaboot ñooy moom dëkk bi ñoo koy ar bi fiy ñëw itam as ndëkk lañ fi fekkoon rek luy tudd dëkk waaye bi fi dikkee nag ci seen barke ak euh, cëru gi nga xam ne moom lañ cëru ci seen borom ci la dëkk bi yàkkali ko ci la dunde seen tedd nga it moo ko barkeel moo ko dundal